mais comme mu leeroon ne ku def violence muy opposition comme pouvoir dinam lo loola si fekk plan nga koy def di nga xalaat waaye Sénégal fii da ngay gis ne ñu bokk ak pouvoir dañuy def violence ni di porte plainte du mujj fenn les gens de l'opposition ne vont pas se laisser faire ils vont se protéger parce que mënoo ñëw ne da ngay politique nit ki bokk pouvoir daf ay musiba daf lu ko neex soko porter plainte du dem fenn euh, muy yak ce ce ce ce programme politique nga tok di ko maintenant kenn est ñu le monopole de la violence dans ce pays c'est les forces de défense et de sécurité Nous, nañ jël seen responsabilité Nous, xool loolu ku def lu nga warul te def ñu lijjanti ko bu ñu sax ni porte plainte def enquête maintenant lu ñu Sénégal dans la scène politique dafa mel ni euh, homme de tenue dañ scène génnee parce que y a des risques que si nous seen loxo scène, jëlee leen fu ñu nekk wala ñu jiiñ leen dañaa faral opposition bi wala loolu pourtant malheureusement euh, loolu mooy yàq moo tax nga gis ne ay nit dañuy xeex gendarme yi taxaw euh, di observer wala bañ a intervenir wala di si moytu ndaxte affaire de politique je vais dire euh, du ma préciser commissariat mais mus naa dem benn commissariat di expliquer le commissaire un cas mu ne mbaa du affaire politique <laughs> mu ne mbaa du affaire politique mu ne ko mais su nekkee affaire politique kon doo ko traité mu ne ah dañ siy moytu comment ça parce que loolu lañ dem

de gérer cette situation sinon population est ñu ëpp force de l'ordre Si vous mu nekkee di dóorante kenn du si mën dara te ay Sénégalais ñooy dóorante et vraiment ay élections jaru mais nak daa am ñoo ne dañu japp né la violence est légitime dans les élections ba élections su jotee dañuy toj gens jàmbur di yaq yefu jàmbur di wut sen nervi parce que lolu moy sen conception parce que yag nañ ko def dara du leen ci fekk dañu xamné les gens en face ils sont autant déterminés et auront autant de moyens pour faire face fekkee nit ñi ñoom loolu lañ yaakaar mais nag jàmm ak salaam la ñuy woote maintenant ku deful jàmm nag xay bu am nga xam ne yaa ko indi si dëkk yooyu.